soxna si ñu lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. tur bi naka la. man la Ndeye Marème Badiane. yow euh, bàjjen nga ci Pape Badiane lañ. la laa maay seen taaw maay seen magu papa waaw. loo ñu mën a wax si euh, sa doom bi ñu faat. sama doom bi ñu faat ñoom ci xaadim mi ñu njëkkee moom laa jur ñoom bandi xaadim la njëkk a fekk mu sëgg yor téléphone bi si la Pape Badiane déggee coow li génn. mais bandi yooyu buñ ma reyeloon xaadim te bàyyil ma Pape Badiane sax moo ma gënal parce que xaadim laa jur Pape dañ koo jur àndil ma ko kon man jur bàyyil ma Pape Badiane moo ma gënal su ma laajoon tey dama naan ko buumal xaadim bàyyi Pape Badiane ndax sama doomu càmmiñ la yaayam jox ñu ko xoolul seetul dégluwul ba ñu yar ko nag ba mu neex a jur Pape muus am xel su bindee nga ne macha allah pape bu fóotee nga ne jigéen moo fóot ay yéreem du tilim su tilimee mu ñëw tànday jox ma omo ma jox ko omo mu sumb fóot ba mu seet mu weer xale yu góor yi léegi ñooy fóotal seen bopp civilisé bëgg boppam. tenir nag bagage su papaam tenir matériel lu papaam papaam du toog day tukki mais danaan ko papa demal mun naa gérer lépp papaam su demee xelam day dal facteur de développement la parce que ay jeunesse ñoo toppoon ci ginnaawam. mu yore société ndax gaal gi mu yor ay fanweeri xale dinañ ci dem xale bu naru di nga di nga joxe dépasse di nga yóbbu ndawal xam nga ko loolu société la kon tey chef de société la rey chef de société moom la ñu rey parce que ku amul njariñ ci société am la. koro biñ koy faat fii la fekk. koy faat fekk na ma ñibbi sama kër mais bi ma eggee ba tëdd noonu si lañ ma woo téléphone ne ma ñëwal Papa Niane agressé nañ ko dee na ki ma njëkk woo loolu la ndax daa tiit. bàjjanam bi ma njëkk a woo moom dafa tiit bi ma ñëwee fekk naa ñu yóbbu ko mais fekk naa fi deret ji mel noo xam ne ba ma ñëwee dama ne kii du dund ndax lii si deret su jógee sa xale du dund waaw. lan ngay wax autorité yi par rapport ak affaire autorité yi moom gërëm naa leen sant leen parce que une bi mu amee gendarmerie dafa ànd ak papaam ci guddi gi ñu ànd ak ñoom parce que li tax mettiwul dañoo xam xale yi xam seen kër yi mais fu ñu woowee gendarmerie rek ñëw na maire ñëw na fi jaale si waaw sécurité nag des na parce que ñun fooguñu woon doomu Yara dina mën lii dina def lii feneen lañ ko doon dégg mais Yara il faut ñu tudd leen ndax doomu Yara moo ko def. yéen xam ngeen ki ko def. ñi ko def xam nañ leen ba jàpp leen. waaw jàpp nañ leen. jàpp nañ leen jàpp bu gaaw kon xam nga yoon def na liggéeyam ak ànd ak xale yu góoru koñ bi nag ak dëkkandoo yeeg papa jeeg ñëpp. fu ñu wax ne foofu la rek def nañ mobilisation dem fa ñu génnee leen ñi doon jéem a nëbb seen doom yi sax génnee nañ leen génnee nañ leen ànd seek police nag yamba ji nag bari na fi mais yamba xale yi xëyuñu rek dugal ko fi am na ñu mag ñuy nekk ca kaw di ko fi andi di ko jox xale yi xale yi koy jaay fii sax koo ci jàppoon mënul fay fay avocat il faut mu woo seefam ana seefam ana ndey ji ndey ji yi leen di jox ñuy andi ana ñu sunu doom yi liggéeyuñu ñu gontuñu géej gi lañ yaakaar géej gi rek lañ yaakaar te kooku tamit si géej gi la doon yëngu am na ñaari gaal ay xale di ci mbaali di ñëw kon nag kooku waroon nañ ko dimbale ci leneen bu lu rey ko